amoon nañu nag aada koo xam ni danga nga wàññeeku bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi da lay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OMS ak conseil yi nga xam ni sunu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu munuñu leen indi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ ne jox nañu ay instructions pour que sunu ambassades yi ak sunu consulats yi ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppook yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi. ñu wax nañu suñu consulat dëkk yi nga xam ne dafa jar ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bi nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññee mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàpp ni da war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi Thank you